fa mën a yem waaye bu ma xamoon ni suba laay faatu ñu dem jënd samay mbalaan ñëw teg mu leer ma ni du ma génn bis bii li may def ci lu baax ak li ma farlu mënuma ko yokk kon kooku xam ngeen ni amut benn temps boo xam ne moom lay sànq ci ak dundam muy loo xam ne ñëpp war nañ ci jéem roy bu baax a baax a baax te wàññandiku jumtukaay yi nu jamono indil te yu ci bare bari di yoo xam ne yi lore rek la waaye njariñam lu néew a néew la dangay gis ab téléphone buñ koy jëfandikoo tey la ci gën a néew mooy yëkkati ko woote ci dellowaat loolu mooy li gën a néew ci li ñuy jëfandikoo téléphone te booy xool daanaka loolu rek moo ci am njariñ kon la ci des lépp euh, luy sànq suñu waxtu rek la kon mbokk mi xoolal bu baax a baax taxawaay boobu nga xam ne ak farlu googu nga xam ne moom la Seydina Ali radiyallahu anhu am ak wogasu ak takku googu nga xam ne moom la am ci temps ba mm, amu ci leen lu muy sànq ba bu xamoon ni suba lay faatu li muy jëf ci lu baax mënu ko yokk kon kooku xam nga ne yàgg na ca dayo ba kon ñu jéem cee roy bu baax a baax a baax bu ñëwee fii ci Sénégal am nañ ñaari mag ñu baax a baax ñoo xam ne mën nañoo joxe ci ñoom misaal ci fonk waxtu ak organiser ko muy euh, Cheikh Abdul Qadir radiallahu anhu ak Cheikh Chouaib bu Mbacké radiallahu anhuma ñoom ñaar de ku leen xam xam nga ni nos nañ seenu dund organiser nañ ko lool ba lenn ci seen waxtu luy sànku de amut ki nga xam ne xam na kan mooy sëñ Abdou Khadir waxtu mën naa jot nga toog fii xool sa montre xam ne sëñ Abdou Khadir mi ngi ci nangam heure bii de ma ngay def nangam bu ci noppee nangam la ciy teg bu ci noppee nangam la ciy teg noonu lay toftalee bisam bi ba nga xam ne lenn lu ne waxtu woom ko war a def bu jotee dem na ci te ku yàlla bind mënoo tee mu dem ci kuy de bu dee ko xam sëriñ Suhaybu radiyallahu anhu moom itam noonu fonk waxtu lool ñàkk jot bañ ko def loxoy neen fu mu nit ki day bëgg mu nekk ci dara doonte da ngay jël ak bale di bale sax moo ko gënal mu romb la defoo dara fokk mu am lu la sant waxtu yemi naafila waxtu yemi wird waxtu yemi jàngal xuraan waxtu yemi recevoir nit ñi déglu seeni soxla bu jeexee mu dell ci liggéeyam lenn lu ci ne mu organiser ko ba nga xam ne sëriñ Soxna bu amut benn minute ci ak dundam buy rëcc boo xam ne amu ci lu mu ci war a def kon ñooñu rek bu ñu leen joxee misaal yóbbaale na mag ñi baax ñi ci des ñëpp ñi ci des ñëpp itam noonu lañ mel kenn ku ci ne ci sa taxawaay ak ci sa yëg-yëg ci waxtu gis nañ noo fonke ak noo ci taxawe buñ joxee ñoom ci misaal rek ah, dana yóbbaale ñi ci des ñëpp ah, ngir bàyyiwaat xel waxtu mbokk yi sëriñ bi mi ngi ñuy waxaat ba tey ci téeréem bu tedd boobu di masaalikul jinaan mu ni wa argabu l ashyaai lil amwaati raddun ila dunya ma alxayaat walaw suwayatan faqad li yacmalu saalihatan tanfahum in qafalu sëriñ bi nee ñi faatu boo leen ni woon pëkk-pëkk ni leen lu ngeen gën a bëgg duñ la ni dugg àjjana duñ la ni euh, génn ci bàmmeel bi duñ la ni mbugal mi lañ bëgg mu dakk duñ la ni dara xam nga lay waxa mooy dañoo bëgg dellu àddina ba mën a jëf aw yiw ndax mbëgg bëgg yi ñu bëgg yëpp xam nañ ni jëf aw yiw moo leen moo leen koy may dellusiwaat àddina doonte benn seconde lañ fi am def ci lu baax nee na moo leen gënal luñ mën a am moo tax kon moo tax mu ne yow mi ci toll te jeexal goo ko nag na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax te sa waxtu woowu nga jeexal ko ci loo xam ne lu am njëriñ la ku ñuy wax abdurahman ibn abi hatam euh, bokkoon ci borom xam-xam yi dafay nettali ni am na bis ñu nekk misra di jàng ñàkk jot lool waxtu wu ne rek ñu ngi ci borom xam-xam boo xam ne buñ jëlee ci moom ab leçon boo liggéey ñu jàll bu ngoonee ñu jàll ca kee bu subaa ñu jàll ca kële nga xam ne dara ci temps rek amuñu ko ba nga xam ne am na lu mat ñetti fan yoo xam ne mën nañu lekkuñ ndax ñàkk jot ndax temps bu ñu am ngir war a lekk rek ñun leen sëriñ sàngam de leçon ba tàmbali na ñu ko fa daw dem jàngi jëli leçon booba buñ ci jógee ñun leen sëriñ sàngam de moom it leçon tàmbali na ñu daw foofa dem jëli leçon booba ba am ñetti fan lekkuñ nee na ñu romb wenn jën ci marché bi jënd ko yóbbaale ko ci kër ga biñ demee ñu teg ko ngir bëgg ko saaf ngir mën koo jëfandikoo ndax xiif bi ndeke ñu egg ci kër ga rek ñu déclaré leen li leçon sàngam tàmbali nañu ñu bàyyi ko fa daw bañ daataa ñëw mu guddi lool fajar ñu jóge si dellu ba jën wa am fa ñetti fan bay waaj a nëb nga xam ne mujj ñu am ku leen ko mën a toggal wala ñu am jot ko saafee waaye noone lañ ko lekk nee na ñooñu xam nga ne ñàkk nañ jot lool ñooñu yaakaar na amuñu jotug euh, seetaan ay télévision ak yor ay tablette ak yu bare bare amuñu woon googu jot waaye seen jot gépp ñu ngi ko defoon ci sàkku xam ak wut lu leen di jëriñ ëllëg ah imaamul jawzi radiyallahu rahimahullah wax wax na ni alwaqtu anfasu ma unita bi xifdihi wa araahu ashala ma alayka yadiyon nee waxtu de lépp looy wattu ak di ko sàmm mooy ci ëpp importance xaalis beeg matériel beeg alal ji li muy bari bari nga di ko wattu sàmmoon sa waxtu wii te wattu ko te def ci lu lay jëriñ nee na moo ko ëpp solo waaye li ma gis nag mooy mboolem li ngay sànk waxtoo ci gën a bari kon loolu lu mat e, bàyyi xel la ñu wax ni e, doom aadama ñetti bis la démb mi nga xam ne jàll na lam ca defoon moom wéy na bu dee lu baax alhamdulillah bu dee lu mel na neen itam e, yal na ko yàlla jéggal te jéggal nu tey ji nga xam ne ci la toll mu war cee farlu lool yóbbulu ci def ci lépp loo xam ne moom la man ndax bu tey rëccee ëllëg moom xamut lu muy indi xamut dana ko fekk xamut du ko fekk bu ko fekkee lan la ëllëg di indaale yooyu yëpp xamu ko moo tax mu wax ni alxasan albasri rahimahullahu bokk ci kàngami mutasawifuna yi wax ni yabna adam innama anta ayyaam yow doomu aadama na nga xam ne sa dund gi du dara lu weesu ay bis rek la ay bis yu tegaloo dong moom la saa bu bis demee rek xamal ni lenn ci yow dem na te lenn loolu dem ci yow dootu del seeti mukk kon mbokk yi nañ farlu bu baax te góorgóorlu bu baax delloo gën a xil xir bàyyiwaat sunu xel ci ndénkaan yooyu nga xam ne moom la ni sëriñ Cheikhul Khadim radiyallahu anhu jox ci waxtu ak important sam ak ni nga xam ne noonu lañ ko war a noonu lañ ko war a fonke waykat ba dafay wax ni ah, bakaytu ala shababi bi dami ayni falam yufidi lbukaawu illa wanna wanna wannaxiibu wala naxiibu alaa layta shababu yaudu yowman fa axbirahu bima faala almasibu nee na jooy naa sama waxambaane sama waxambaane de jooy naa ko ci rongoñ yu tar waaye ma gis ni jooy yooyu de mu mujjut am njariñ dëjjëtu yooyu ma doon dëjjëtu di yëkkat amaluma benn njariñ ndax waxtu wa ma doon jooy de mënut a siwaat ci man waaye waaye aka neexoon waxambaane gi nga xam ne aka neexoon kàttan gi nga xam ne moo jàll mu dellusiwaat ba ma man koo xibaar li nga xam ne moom la bijaaw bi def ci man lu bijaaw bi def ci man tële ñàkk man di yéene lu ne ma ne bu ma ko mënaatoon te du fekk dootoo ko mënati ndax tele moom bu ñëwee dootu deltu gannaaw euh, day yokk rek <laughs> kon mbokk yi ñu ngi lu foofu di fàttali sunu bopp di fàttaliwaat ñëpp rek ñu dello suñu xel ci temps bi xam ne moo composé suñu dund te lépp lu nu ci ñàkk dootuñ ko amati bu ngi gisee mag ñi fonkoon kurus jamono yu ne ñu yor ko ak lawraat yeeg lazim yi du dara lu weesu bëgg rek nit ki ñàkk jot jamono yu ne mu occupé wu ci loo xam ne donte ay subhanallah yu muy wax la mu di ko may tuyaaba ba nga xam ne ah, boo ëllëgee dana fekk ay baga ay balance am diis gann aku yiw yàlla na yàlla boole dimbale boole nu sàmmal suñu waxtu kilifa yi taxaw barab bi yàlla dimbale leen di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla guddal aw fanam te yokk ak wéram ba naal li nga xam ne moom la naal ci lislaam lépp mën ko yeggale ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu